mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal C3S ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci wàllu liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki internet yu euh, Tawfekh production chaîne chaîne de production bi ngeen di am ci plateforme YouTube euh, ñoo am mbégte yi ak contentement am tamit euh, vraiment xol bu sedd ci ginnaaw bi ñu leen retrouvé waatee ci semaine bi ngir décrire leen actualité de la semaine décrypter leen ko bokk di jégalu ci absence bi ci semaine bi passé ak ak liggéey bi la rek ak ni mu wante ku nekk xam ne ne cette semaine là vraiment observé euh, pluralité ci wàllu actualité mais la plus récente euh, date d'hier avec la déclaration d'Ousmane Sonko le leader euh, le leader du parti Pastef les Patriotes bi nga xamante démb génn na di deuxième bi déclaration depuis le début de cet événement bi nga xamante ni mbir mi am na démb nag liñ ci mën a jàng ci sa déclaration mooy donc une déclaration purement politique aussi. Il faut le signaler et le dire. C'est un leader politique donc, qui est sorti euh, faire une déclaration pour répondre à un leader politique qui se nomme président Macky Sall. Euh, parce que euh, depuis le début de cet événement on a vu la tournure de cet événement maanaam ni ñu ko soppee ci yeneen anam maanaam une affaire euh, privée devenue une affaire publique euh, jusqu'à aller même une affaire boo ñuy xaw a suspi am suspicion ci Euh, complot d'État euh, qui émane du sommet de l'État selon eux maintenant cette déclaration bi nga xamante ni def na ko démb foofu lañu ko mën a euh, classer placer ko foo ma jàpp ne aussi Ousmane Sonko et dans son rôle en tant que leader de position leader politique également euh, qui aspire à diriger ce pays lu ci mën a am mooy Idriss Seck l'avait fait ce n'est pas une première fois qu'un leader politique qui est par exemple accusé wala am ay problème euh, politique ay problème bokk avec euh, justice ak ku mën di doon parce que Sénégal ni ñuy jàppee problème d'un leader politique avec la justice forcément il faut qu'il y ait l'implication du pouvoir exécutif maintenant euh, Idrissa Seck l'avait fait bi nga xam ne am na problème ak l'ancien chef d'état sénégalais maître Abdoulaye Wade génn yëglu ne dara jotuma maa ngi sant yàlla parce que njotoon na ne xam na ne fi mu mujjee donc Ousmane Sonko foofu lañ ko mën a classé mooy que xam na ne il fait face à un leader politique qui est prêt à le liquider moom moo ko wax donc il est normal il est dans son rôle de faire une déclaration purement politique parce que dans sa déclaration déggoo ci mu tudd ci aji Sarr waxu ci salon waxu ci dara loolu c'était sa première déclaration maintenant sa deuxième déclaration c'est une déclaration qui annonce que carrément que Ousmane Sonko dafa mel dafa gis ne gars yi ñu ngi ciy tànkam di ko yottal et loolu bu fekkee ne am na aussi c'est dangereux et dans ce pays il faut qu'on respecte également la liberté la démocratie autant pour moi les acquis démocratiques nga xamante ni am na fii lu waaye bañ-bañ Abdoulaye Wade lu ko waaye bañ-bañ Abdoulaye Wade xam ne il était un démocrate jàkk jaa ngi ku bëgg a nodd nodd bi ko Abdou Diouf indee terewul Abdoulaye Wade dafa ñëw moom fësal ne ku am sañ-sañ ku mën a wax lu mën a defar réew mi wala ku am kàddu bu mën a jëm ci réew mi di pluralisme des opinions mbir yaa ngi noonu donc euh, si aujourd'hui euh, depuis 2012 sous le règne du président Macky Sall ñu pointé ko du doigt c'est parce que il y a des actes qui sont posés yoo xamante ni amul euh, euh, njeexantal Ousmane Sonko est dans ce rôle pourquoi parce que tout simplement gis na ne il fait face à un chef d'État boo xamante ni bu fekkente ni nii jublu na ci dara da koy def parce que ku nekk xam na ne depuis que le chef de l'État président Macky Sall est au pouvoir amul benn acte bu mu posé bu échec du ci lenn parce que gis nañ fi euh, euh, Karim Wade te Ousmane Sonko il est dans son également parce que tout simplement euh, lu wolof naan ku ndëbin rey sa maam boo séenee lu ñuul dangay daal di daw donc ku bëgg a yuxu daal di wéq wolof yi tamit naan nag bu jëm seeraas moom jërul te ñee lu ñu war a yërëm la donc bu jàppee ne mi ngi dans cette logique il est dans son mu teel a yëglu yëglu bi parce que simplement nee naa fi Karim Wade déggoon nañ ko fi coow li mujjul fenn waaw non Macky du ko def dara makki ak Alade fi mu jaar ak moom anaw amul ku dem ñëwaat ba mu demee ñëwaatut de bañ ko woowee dañ ko ñëwaatut foofu lañ ko téye ba biñ koy génnee réew mi ak condition yi mu demee du ma ci wax Khalifa sàll ah non kii ak fi mu jaar ak kii moom ak Macky Sall nangam nangam bof fu mu mujjee il a été privé des élections yi passées moo xam élection kii élection surtout l'élection présidentielle de 2019 fu mujjee mu ngi nii donc Ousmane Sonko en tant que leader politique il est aussi dans son rôle d'apporter une réponse politique face à un leader politique maintenant li ñu ci war a wax mooy euh, pour man yoon dañu fa war a def liggéeyam boo xamante ni ñëpp dañ ci war a gis seen bopp une justice une justice équitable une de tous et pour tous mais pas une deux poids deux mesures wala une à double vitesse te Sénégal loolu li ñu ko fi ŋàññ bëri na lool te dañu war a bàyyi xel ne les hommes passent mais les institutions demeurent et les hommes de valeur restent ngir yàlla président Macky Sall réew mi fi ñu ko fekk te yàggam yàggam fi ñu koy bàyyi je pense que l'idéal c'était de sortir par la grande porte et avoir quand même euh, benn woy bu rafet boo xamante ni kenn du ko fàtte à son âge il peut quand même exercer plusieurs mandats sur le plan international d'ailleurs même sur le plan diplomatique on a vu les succès diplomatiques qu'il a eu mais non mën na am yeneen mais bu bëggee toog fii jàpp ne moom palais bi moom lañ ko tabaxal moo war a toog foofu kenn du tudd troisième mandat moo war a def nangam bu ko defee rek mi ngi nax boppam ndax réew mi da ko fee fekk te fi la koy bàyyi kon yaakaar naa rafetal rek moo am solo te il est temps également que les chefs religieux se prononcent par à cette situation d'autant plus que lui-même président Macky Sall ma fi waxoon ne 31 décembre kenn du ko fàtte c'est récent que ni am na dossiers yoo xam ne bu na lee taal dëkk bi